donte campagne ñeel gerte gi ni muy doxee jur na gàllankoor ci boor yu bare bari indi tagga témbe ñeel ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum diwlin soxna maam xari mbàkke bu Rasiat di sàkku ci ay naataangoom ñu ànd ak del bàyyi xel ci ne président Macky Sall moo suqali seenub secteur te it dugal na ci ay koppar yu takkoo takku ñu nag kàddu yi ñu ci yëkkati euh, kàddu yi sant la sant président Macky Sall d'abord euh, parce que association Rasiat ci nguuru président Macky Sall ñun ci lañu ñu gisee suñu bopp euh, euh, situation bi am tey nag ba waral tey ñu dajee fi nañu xam ne dañu commandé woon ay machine Chine association bi moo ko commandé woon pour que ñu waajal campagne 2019 2020 machine yooyu yàlla dogal na mu egg si ñu ñëwoon tey euh, di ko xool si war ko inauguré ngir mën ko séddale membre Razia yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Touba ak li ko wër kaddu yi euh, nga xamne ne nañ ko fi fan yépp nak ñi nga xamne ne nekk nañ ci walu secteur industrie industriel yu huileries yi di ko campagne arachidière bi ni mu doxé ren man nak limay wax sama mbokku huileries yi membre Arasiad yi ak société bu mel Sonacos ak yenen société yi nga xamne ay industrie huileries lañ ci bir réew mi moy ñu dal ndax président Macky Sall dafa yàgg secteur industrie huilerie yi ku nekk xam na ne Sénégal chaque année daañu daan génnee ay milliards di ko dugal ci secteur industriel huilerie yi muy li ñuy subventions. subvention kon bu ñu 2019 2020 ...la campagne bi démarré prix gerte gi yéeg jàpp manifestation ak coow du solution solution bi ki la solution est ba nga mën appelé, ah di subventionné gerte gi di la ko jox pour nga liggéey rasiat bi nga xam jotugul won am ci situation bi mu bolé ko ak Sonacos di subventionné Sonacos Sonacos di jox raziat guerté soxna mam kharim mbacké di wax ne li jàmb kay wessoul delu talal loxo président Macky Sall ngir mu gën leen mëna dolél ah japp na ne bu jafé jafé amé ñun dañuy talal loxo président Macky Sall pour ñu tok waxtaan ñun ñi nga xamné ne nek ci filière arachidière bi parce que ku gis réew mi ni mu yëngo ci guerté gi fim né ne nga xamné président ku mbay mi ñor la té li am ren ci guerté gi japp na ne ñun wa raziat waroon nañ ko xaar ndax keroog bi ñu président dalalee daf ne sama priorité ci Sénégal mooy bor jeex ci mbay mi mbirum bon impayé jeex ci mbay mi loolu moom lañ gis actuellement ci campagne bi euh, tey situation bi ni mu présenté woo ñi nekk ci secteur industrie huilerie bi am nañu jafe-jafe nangu nañ ko mais baykat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñi ngi gis seen bopp ci campagne bi te yëf yi chaîne de valeur la te baykat yi ñoom ñooy principal acteurs yi comme nag les principaux acteur ñoom ñi ngi gis seen bopp ci campagne bi ñun benn pàcc lañu ci biir filière gerte gi muy ñun ñi nga xam ne dañuy nal dawlin ji muy ñun les artisanats de l'industrie d'huile d'arachide au Sénégal donc ñun ñun dañuy tàllal suñu loxo président mu jàpp lañu nam ñu daan jàppalee ba nu mën a gis suñu bopp ci campagne 2019 2020 ndax ku xam président xam ne euh, secteur industriel daf ko ñor kon kooku du ginnaawal secteur industriel xëy na nag euh, campagne bu ubbee benn situation am day am les pour et les inconvénients xëy na ñun inconvénients yi ren ñun la dal waaye nag ku xam président Macky la xam ne du seetaan ndawu réewam du seetaan ay liggéeykatu réewam du seetaan secteur industrie réewam kon jàpp naa ne manifestation yeeg coow li jaru ko bu ñu dalee woote waxtaan jàpp naa ne solution dina am parce que man gisuma ñu ne dëgg-dëgg xëy na chinois yeeg lii non non débat bi du foofu xam nga débat bi lan la dañu nekk ci benn chaîne de valeur chaîne de valeur bi mi ngi commencé ci baykat bi yéeg ba ci consommateur bi jënd diwlin kon chaîne de valeur boobu ñun ñu ci nekk ay acteur lañ acteur bu ci nekk war naa gis boppam mais man en tant que huilerie yi du ma du ma ci gisul ma ci sama bopp ren sama usine dafa tëj Rasiaat liggéeyuñ mais wóor na ma ne baykat bi mi ngi ciy gis boppam kon damay woote ñu waxtaan président mi nga xam ne moom moo yilif Sénégal yépp c'est le gardien de la construction ku jaaxle ci moom ngay daw kon ñun dañ koy tàllal loxo pour mu indil ñu solution waaye ñun du ñu mer du ñu manifester du ñu grève tey ndaje mi nii ñoo ko bëggee nii parce que bëgguñu fi woon a woo bëgguñu fi woon a woo avons 20 000 emplois 10 000 emplois il frustration a une frustration. Nous dañ éviter parce que it nag 20 000 personnes une société di employé ay personnes mais y' a combien de millions de baykat est ce que baykat de sont bayul de dina am état. dafa jël benn mesure mesure bi arrangé baykat bi jàpp naa ne ñun ñi nekk tey jii ci secteur industriel yi huileries yi nga xam ne jàpp nañ ne cinq lañu woon bi ñuy signé plateforme bi ñun dañu war a dajee waxtaan tàllal suñu loxo état ànd ak dal déglu président Macky sàll mu jàppale ñu nam ñu daan jàppale loolu mooy wax bi loolu mooy wax bi ñun waa Razzia de ci loolu lañ nekk ñi ngi dal ñi ngi déglu président Macky sàll te xam nañ ni nim ñu jàppalee woon danañu ko jàppale ba ñu mën a liggéey ba suñu usines yi mën a ubbi parce que razziyaat nag buñ ko xamee mbaa ñu dégg ko grâce à président Macky Sall kon tey mesure bii mu jël ren ci mbay mi ñun gisuñ ci suñ bopp mais suñ bokk baykat yi ñu ngi ci gis seen bopp te Sénégal benn bopp la te daaw daat nañ ci gis suñu bopp daaw jéeg daat nañ ci gis suñu bopp kon ren buñ ci gisul suñu bopp danañ muñ ànd ak dal te xaar président te xam nañ ne dana jël mesures yoo xam ne képp ku yëngu ci secteur industriel gerte gi di nga gis sa bopp ci liggéey bi. kàddu yooyee jib gannaaw ba nga xamee ni Rasiat doon na amal waxtaan weccoo xalaat ci Touba Héliport ñeel campagne bi nga xam ne moo jëm ci wàllum gerte gi.